وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله mbokk yi seetaan seen télévision MKTV di télévision bu mag bi nekk ci jumaa jumaay Touba te daayira Muxaddamatul Xidma di ko saytu ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu siwaat nañu ak yéen ci seen jataay bu am solo bi ñu tuddee nemmeeku di jataay boo xam ne dañ ciy gëstu barab yi nga xamante ni dafa am taarix ci yoonu murit ak jaar-jaar ak dunduk sëriñ Touba. suñu numéro tey bii nag di ñeenteelu numéro bi ñu war cee nemmeeku barab bu tedd bi ñu nekk di kër sëriñ Touba gii nekk ci Daarul Mannaan di genn ci kër sëriñ Touba yi. ginnaaw bi sëriñ bi sancee daaru salaam sanc daarul mannaan di fi jóge di dem Touba ak a ñëw nekk fi ab diir bu yàgg kon kërug daarul mannaan gi lañu war a waxtaane tey ci suñu émission nemmeeku ak jeexital yi nga xamante ni am na ci kër gi ak yi nga xamante ni mën mënees na koo jàngate ci kër gi ñu war cee ànd nag ak borom xam-xam ak gëstukat ak jàngalekat koo xam ne ab gëstoom mu ngi jëm ci taarixu sëriñ bi ak i jaar-jaaram ñu koy wax sëriñ Fallou Bousso Tamba bokk ci ñi nga xam ne seen i yëngu bokk na ci saytu kër gi sëriñ Fallou Bousso Tamba moomu lañ fas yéenee àndal ci seen émission ko incha allah ci kalam tuuti ñu dalal sëñ Fallou ngir waxtaani këruk sëriñ Touba gi daarul mannaan zikri wa sukri wa ridwaani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wa fi ولست أسأل خير النبي الله ok kon mbokk yi ni leen ko waxee ci ubbite bi suñu jataay bii ñu tuddee nemmeeku tey ñu ngi ko jagleel barab bu tedd bii di kër Seexul Xadiim gi nekk ci Daarul Mannaan bokk ci këri Serigne Touba yi ginnaaw Daaru Salaam ak Touba gis suñu premier numéro ñu ngi woon ci kër Seexul Xadiim gi ci Daarul Xudduus dem nañ fi Daarul Alimul Xabiir muy Ndaam tey nag ñu ngi fii ci Darul Mannaan fas yéene waxtaane nag euh, kër gi ak jeexital yi nga xam ne moo nekk ci kër gi ñu war cee ànd nag ak boroom xam-xam gëstukat koo xam ne ku di faral di topp jaar-jaari sëriñ bi rawatina tukki jéeri jee géej gi danga gis ne am na ci taxawaay bu am solo boo xam ne moom lay def ñu koy wax sëriñ bu Bousso Tamba sëriñ bu sa tàmba mooy ki nga xam ne tey moo ñu war a dalal fii ci Daarul Mannaan ci kër Cheikhul Khadim gi ñu war a waxtaane lu aju ci kër gi kon ñu bàyyi rek mu nuyoo ñu doog tàbbi ci waxtaan wi sëriñ Fallou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Ablaye ñu ngi leen di fay di jaar ci seen jëmm yi di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel eh, di leen dalal itam jàmm fii ci Daarul Mannaan ni ko waxee ci kër Cheikhul Khadim di ziare Cheikh Mamadou Mountakha Bachir di mu yàgg fi lool te ànd waaye eh, di ziare itam Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne mooto moo tax jotaay Cheikh Ahmadul Fadil te fii ñu nekk tey jii bokk ci ëttam mu ne ci ay loxoom itam dinañ ci ñëw incha allah waaye di beral nuyoo ak ziare itam njabootug maam Thierno Birahim gi nga xam ne ñoo féete fii ci Daarul Mannaan mën nañ ko tàmbalee sax ci fee ci Daarul Mawti di Cheikh Bachirou suñu maam ju baax jooju fa nekk waaye di nuyu itam sëñ Mbacke Abdourahman mi nga xam ne mooto tax jotaay a Abdourahman moom maam Thierno te féete fii ci Daarul Mannaan di nuyu daal mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ñëpp di am mbégte lool nag ci ànd ak yéen jotaay bi nga xam ne mooy nemmeeku ci nuyoo bu am solo bi nga xam ne moom nga nuyoo ni ñu ko waxee rek jotaay bu nemmee ko dañ koo jagleel découverte ci barab yi nga xam ne dafa am taarix ci yoonu murit rawatina e, sëriñ bi jaar fa am jeexital yu fa nekk nga ñëw baaxee ko mbokki taalibe yi ak mbokki julli yi nga xamante ni yittewoo woon nañ loolu tey nag daarul mën naan lañ fas yéene waxtaane mm. xanaa laaj bu njëkk bi rek mooy kër gii di daarul manaan bokk ci kër sëñ Touba kañ la ko sëriñ bi sanc ak lu taxoon mu sanc ko. waaw jërëjëf euh, sëñ Ablaye bu delloo ci taarix day euh, danañ gis ne Cheikhul Khadim mboolem dëkk yi mu sañc yépp daf koo sanc ci ndigalal boromam. <clears throat> jubluwaay bi itam weesuwul la mu waxoon ci daaru salaam ja ak Touba ja te mooy jaamu yàlla maanaam yéeneem ju sell ci foo xam ne dana fa mën a jaamu boromam jaamu ko dëpp ak sunna waaye man faa liggéey itam man faa liggéeyal li tam sallallahu alayhi wa sallam liggéeyu lislaam bu màgg bi nga xam ne da ko jaayante woon ak moom lu jiitu muy dem ci géej gi donte am nag sanc yoo xam ne jiitu na loolu men daaru salaam ak Tuuba waaye loolu rek mooy li nga xam ne mooy sabab bi tax mu sanc mboolem sancam yëpp daarul man naan gi ñu nekk tey nag eh, li li siiw ci net li yi nga xam ne borom xam-xam yi bind ci yoon yi bind nañ ko mooy dañu wax ne bi sëñ bi nekkee ci géej gi ci mujj géej gi xëy na du sori ay 1900 ci la yónnee benn bataaxel yónnee ko maam Thierno foofu am na ñaari version benn bi ñu wax ñu ñu maanaam ñenn ñi dañuy wax ne sëñ Ablaye Ndour la ko jox moo ko indil maam Thierno fekk ko fii mu mujj a nekk lu jiitu mu ñëw fii te mooy fi ñuy wax guy Ngora fa la ko fekk jox ko lettre bi sëñ bi di ko ci digal nekkoon na dem fii ñuy wax guy tàggoo nga xam ne mi ngi niir daanaka soriwul ak xëy na armeel yi fi nga xam ne fi la guy gi nekkoon sam sañcal ko fa ab dëkk wala ak kër. jox ko itam tur yi sëñ ba joxe tur yi ko daarul man mannaan ñu bari na la ñuy wax <laughs> xam naa xëy na maanaam déformation la rek mm-hmm. eh, ñu xaw ko soppi tuuti mm-hmm. waaye daarul man naan la al naan dafa bokk ci turi suñu borom yi mooy ki nga xam ne mooy joxe xéewal gu sax dàkk te bari lool te nga xam ne caa dëkk mm-hmm. al mannaan sëñ bi nag yónni bataaxel kon ci version bu njëkk boobu eh, Abdoulaye Ndour eh, jox jox ndigal borom daaru mu ñëw sanc fii ci guy tàggoo tudde ko daarul mannaan Euh, ci nettali boobu nga xam ne mooy bi bi gën a siiw ci waa daar yi mhm. dañuy wax ne am na am na maa ngi jëlee ci sëñ Bay gis la mu jëlee ci sëñ naa loo mu jëlee ci sëñ Maxtaar Bintu la waajuram mi nga xam ne mhm. moom daa bokkoon ci bi mhm. mu wax ne sëñ Maxtaar wax ne bi leen maam Ceerno di jox ndigal la ñuy sanc fii booba dafa fekk mu tombeek nawet nee na booba la ciy firnde mi ngi yor jaasim joo xam ne da koo maanaam ju ju baax daal joo dañ ne dañu ko awoon xam naa aw bu rafet daal waaye ngir bañ mu tooy dafa gas ba mu xoot mu samp kii bi jaasi ji ngir bañ bu taw bi ñëwee mën a yàq euh, li nga xam ne mooy mooy aw bi nee na bi leen maam Cerno jox ndigal ci ndigal Sëñ Tuubaa pour ñu sanc fii da wax ne bu ngeen demee ba ca guy tàggoo googa ngeen maanaam gor fa niser fa ab dëkk te fa ab dëkk loolu kon mën nañoo wax ne ci tënk daal euh, sëriñ bi maam Cerno la jox ndigal ci mujj géej gi ne ko na nañ ñëw fii ci guy tàggoo sanc fii euh, daarul mën naan am na beneen version boo xam nag maam Cheikh Anta borom gaawaan bi mu demee lambar na fekk sëñ bi ci mujj géej gi bi muy ñibbisi bokk na ci lettre yi mu ko jox ak ndigal yi mu koy bënte mooy bii ne ko boo demee na nga wax borom daaru jox ko lettre ne ko na jóge guy ngóoraa ñëw sanc dégg nga guy tàggoo loolu itam moo tombeek bi nga xamee ne euh, Cheikh Sidil Muxtaar bi nga xam ne moo sëñ Cheikh Awa Balla euh, feeñ na jamono ci guy ngóoraa ci ay 1898 ci bi ñuy sanc daarul manaan gi ci lañ wax ne ci lañ ko wàcce li ñuy wax am soow nga xam ne moo loolu defe naa boo demee ci bind sëñ sëñ Musaa Ka eh, di ko ci fekk kon loolu daal ci tënk mooy eh, historique sanc bi ay 1900 lay doon maam Ceernoo ko sanc ci ndigal bi ci leetar boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci géej gi ci mujj géej kon mu mel ne bi ko sëriñ bi sanc bi muy joxe ndigalul ñu sanc ko moom boobu mi ngi ci géej gi boobu mi ngi ci géej gi waaye ndax ginnaaw géej gi sëñ bi nekkaat na ci daarul mandaan gi ab diir wala bokk ban diir la fi nekkaat ah, ah waaw ah kay bi nga xamee ne yàlla dogal sëñ 1902 euh, le 11 novembre 1902 xam nga la ñibbisi jaar fi mu jaar ndar ak ci diggante Louga Koki ak yooyu euh, kii euh, Koki waa ba ñëw ñëw Mbàkke Kajoor ba ñëw Daaru Salaam gii bi mu Salaam xam nga ci weeru Korite wala fi ñëw maam Cheikh Anta ganale ko nganam gu gu gu am gu rëy googu ba ngan nga jeexee nag la daal di jógee Daaru Salaam loolu du war a sori janvier 1900 maanaam 3 janvier 1903 am na soo ñu wax le 26 janvier la bàyyi ko Daaru Salaam nag ci kër gii nag fekk borom daaru boobu mi ngi fekk bagages yeeg yëpp waaw waaye wax nañ sax bi mu accès Sëñ Abdou Khoudoss daa daana ko nettali di wax ne euh, bi mu accès ba sëñ bi di ko joxaat bagage yi mu ko bàyyee woon dafa yéeme ndax maanaam maanaam attaaya dégg ba ci xalima yi nga xam ne sëñ bi da ko dégg sëppoon sax maanaam jotu ko bind rek dara mejjut dara daal manqué wu sëñ bi ko yéem sax da ko ah, moo ceerno lii damaa xamul ak maandu la wala daam loo xamoon <laughs> waaw kon mi ngi mi ngi jàngale bindu wóor mm-hmm. ma amaana ci buñ la denkee mm-hmm. nga taxaw taxaw taxawaay bu am solo boobu nga xam moom la maam ceerno taxawoon moo tax bi mu ñëwee dafa daal di delloo sëñ bi bagage yi sëñ bi agsi ci kër gi mu xam ne kon borom kër gi ñëw na mu daal di génn ndànk moom daal di dem sanc fii mu tudde woon kay maanaam kër donga yi waaw kër donga ah, yi nga xam ne mooy fii nga xam ne fii la waa ko Cheikh nekk eh, moom maam Thierno eh, kon sëñ bi mi ngi fi ñëw janvier 1903 juróom-benn weer la fi nekk juróom-benn weer rek la fi nekk ba le 13 juin ci même année bi ci la fi jógee nag dem euh, dem gànnaar kon li fi nekk lépp ëppul juróom benn weer waaw waaye nag xew-xew yu am solo xew na fi yoo xam ne mhm. xëy na du ñàkk ah. waaw loolu dinañ ci ñëw mhm. euh, waaye ndax bi mu fi nekke noonu mhm. ñenn ci ak njabootam la fi nekk ndooloon gannaaw maam rek ndax am na ñeneen ci ak njabootam gum fi nekk ndooloon waa xam nga xam nga xam nañ ne sëñ bi muy dem ci géej gi njaboot gi da ko bàyyi ak borom daaru kon wér na ne fu borom daaru nekk fala njaboot gi nekk ba tax wax nañu sax Cheikh Amadou Fadal ak Cheikh Amadou Moustapha ak suñu seen bokk yu baax yi maase doon jamono fii lañ nekkoon doon bàggante diggante daarul alimul xabir ak fii ci daarul manaan nga xam ne seen seen jàngum alquran bi sëñ bi laata ñu bi sax mu fekk na mu noppi uh-huh. bañ bind kaamil Cheikh Moustapha ab kaamilam dem na ci géej gi fekk sëñ bi kon euh, njabootu sëriñ bi euh, rawatina ñu góor ñu ngi tolloon ci jàng te feeñoon ci jamono yooyu doon ay mag tuuti doon ay ay ay ci zaahir waaye buñ ko maanaam par rapport ak ñi des ñu doon ay mag Euh, ñooñu fii lañ nekkoon nag borom daaru ndax maam Thierno dafa nekkoon nag sëñ daam sëñ daam a ngi daarul alimul xabir dëgg la waaye teewul itam euh, man njabootu sëriñ bi itam mi ngi leen uufoon doon leen ndax mu nekkee guy ngoraay itam xam nga fa la natt woon lool ba da nga tawat ju métti jóge ko dal dal dal dal ci maanaam njaboot gi ba Cheikh Mouhamadou Ridaali mi nga xam doomi Cheikhul Khadim moom itam génn àddina ba maam Thierno nag xawoon na dem ba jaaxle am sax ñuy wax dañ ko mujj xamal ne ko fii dafa nekk dëkkuwaayu ay jinne gi mel noonu xam naa ñoom sax gëmuñu waaye tax na daal ngir ba demoon na ba jaayante sax ne sëñ suñ daal boo naree jël njabootu sëñ Tuubaa gi te bu bi ñëwee du leen fekkaat nii nii ma ko dénke woon maa ngi ñaan nga jël ruux ak sama waajur bi a euh, ñu ngi fi woon ñu ngi fi woon nekkoon nekkoon nañ fii Daarul Manaan ku mel Cheikh Amadou Fadal ku mel ak ñi nga xam ñoom lañ jamonoonte loon waaw ndax booba itam li ñuy wax ci daara ji mhm. daara ji maam Thierno yoroon doon ko jàngale mhm. ndax fii la woon daarul manaan wala mhm. euh, ci ban barab la woon waaw xam naa xam nga daara ji comme maam Thierno toogul woon benn béréb daa mel ne da doon tuxu moom xam nga daari daari alxuraan ji moom maanaam sëñ daama koy roon sëñ daama koy roon ndax xëy na wuute bi am ci kañ lañ kañ lañ sëñ daarul alimul xabir loolu xam naa yéen def ngeen ci gëstu euh, ñi ñi ñi jàpp ne xëy na maanaam njëkki géej gi la loola kon fekk daarul alimul xabir ne fi ba daara ji ba daari alxuraan ji ne fi eh, njabootu sëñ bi di dem di jàngi foofa wala sax ñu féete fa léeg-léeg ñu ñëw ci maam Thierno bi ñu demee ba a xam-xam di sëñ bi ñëw gudd tam teñ tàmbali booba ci maam Thierno la ñuy nekk kon fa maam Thierno nekk foofa la ñuy nekk te li ñu xam ci taarix mooy maam Thierno ginnaaw bi mu jógee Mbacke Bari ba ñëw Mbacke Bawal jafe-jafe yooyu fa am dafa dem dégg nga sanc maanaam guy ngora ba loolu moo waxoon léegi xew fa booba fekk na jaboot moom Euh, mu soog faa jógee ñëw sanc daarul manaan kon bi mu nekkee daarul manaan fii mën nañu wax ne kon mm, daanaka man moo doon daaree xam-xam ju mag ji doonoon sax université bu mag bi nga xam ne lu jiitu muy dem daarul monte dañ ci ñëw léegi fii man man mën ne fii la maam Thierno te maanaam jàngale ñu baree baree bari ci ñi nga xam ne ci boobu jamono tolloon nañ ci sàkku xam-xam ba ñu nekk ay géej ci ginnaaw waaye ñu dellu siwaat nag ci sëriñ xissa bu siiw boobu histoire bu siiw boobu ci euh, euh, soldat soosu commandant Lukki jebaloon mbaaxaan ñu ñëw fi ci tuuma yooyu ñu déggoon ci sëñ bi ci ne dafa yor ay ngànnaay day waaji jihaad day préparé nangam nangam euh, xissa boobu itam bëggoon naa ñu dugg ci tuuti bala ñoo ñëw ci waaw loolu day am na solo ndax kenn mënta waxtaan daarul manaan te tuddoo xew-xewi daarul manaan bi te xew-xew daaru ma naan yi bi ci gën a am solo mooy bii nga junj te loolu li ko waral mooy dafa am lu ko jiitu bi sëñ bi ñibbisee ak ndam li mu ëndaale mbooloo mi dafa gën a bari mm. euh, taalibe yi gën a gëm seenub sëriñ gën koo bëgg euh, sigseb sëriñ bi gën a yaatu ci réew mi ciwte gi ak njariñ li gën a tasaaroo mm. tax na mbooloo di fàqe fu ne di ñëw di ko seetsi juróom benn weer yooyu mu def fii mën nga xam daanaka adduna bépp ci réew mi fekk nañ ko fi mm-hmm. loolu nag jur nag wala juraat nag yi nga xam ne moom la juróon ci ci xëy na maanaam jalbeenu géej ga mooy kiñaan yeeg ak soxor yeeg yu mel noonu mm-hmm. ba tubaab bi tàmbali nag xam naa leer na ci maanaam chef chef yi sax laay wax mm-hmm. di bind lettre tubaab bi di ko xamal ne ko sëriñ bi daal mi ngi ci wàccaay wala boog mi ngi gën a amaat doole te mi ngi mi ngi xalaat sax xëy na fayantoog yu mel noonu ba tax na euh, ci ci ci foofu dafa ñaari version nag mm-hmm. ci lii ngay laaj ni am na ci version boo xam ne moo gën a siiw ci yoon wi nga xam ne borom xam-xam yi bind ci yoon wi loolu lañ bind sëñ Bachirou sëñ Medlamine sëñ Moussa Ka ba ci ñu bari ci loolu lañ bind mooy maanaam dikkug mbaaxaan waaye eh, boo de ci archive itam xaw na wuute tuuti rek dana xëy na du maanaam dañ ko leeral tuuti mooy bi nga xamee ne sëriñ bi tux si na daarul mën naan wax nañu kër gi fii fii ñu nekk nii dafa xëy xëy jommi dafa lakk bi mu lakkee eh, sëriñ bi wax ne kon nañ ko wutal fu mu ne ginnaaw joxe woon na daaru salaam jox ko maam Cheikh Anta foofu moom foofu moom léegi mënatu faa dellu Tuubaa itam jaayante naag boromam a dellu ba mu xalaat ne kon nañ ko defal fii kër tey jii boo demee fii ci ndaam ci wetu ndaam rek am na fa fu ñuy wax daaru salaam nga xam ne fa la man Cheikh Mourtala def këram googu yi foofu noonu kër Sëñ Tuubaa la bi kër gi jommee fa lañ ko sancal mu def fa diir ba mu fa def ngir ñu yeesalaat kër gi maanaam kër daarul manaan gi bi ñu ko yeesalaatee ba mu àggal wax nañu maam Cheikh Ibrahima Fall yónnee ñu wuti ay lal ngir mën ko def ci kër gu bees gi lal yooyu ñu def ko ci ay saako bi ñu ñëwee ba tolloog ndula la ko benn xam ardo boo xam ne dafa bokkoon ci rajo mbaaxaan yi yëg loolu xam nga sëñ sëñ Musaa Ka nettal na ko mu ko lambee daj daj lal daal di jàpp ne ay fetal la mu daal di bind mbaaxaan leer daal koy wax wala boog mu dem xibaar ko ko mbaaxaan mbaaxaan jégal ma ki tur yi waaye lu histoire koy tudd te attaarixu laa yar xam léeg-léeg euh, mu tàmbali ñu koy clamé ba ki nga xam ne moo nekkoon gouverneur ci booba jamono muy Merlin di yónnee ay bataaxal yu bare bari sëñ bi ak ay ndaw maa ab loo yónne na ko fii mu ñëw di woolu sëñ sëñ bi gàntal mbaaxaan moom mu ñëw na fi ay yoon di woolu sëñ bi sëñ bi gàntal am na yoon wax ne ab campement la def ci Mbàkke fexe na ba sëñ bi ñëw wuy si ko ba mu ñëwee bi ko sëñ bi laajee lu mu ko dee da ko ne dañ maa wax ne ma yow kenn mën laa yëkkati waaye may xool ba xam ndax man mën naa laa yëkkati waaye man ka dégg maanaam déggu ma la dara sëñ bi xaw xaw caa tàng lool sax ba am na fu mu fu ñu jaar nga xam ne dafa am lu lu lu mu doon seet ci ay cosaanam rek waaye ko doon dina doy waar léegi euh, même ki nga xam ne mooy l'administrateur de maanaam Tivaouane muy Alice moom it ñëw na fi ak ñeneen ak ñeneen waaye sëñ bi gàntal xamal leen ne man benn buur bu dul yàlla dama ko reconnaître ci loolu nag ci lañ ne ci la Alice nag moom yi daal di proposé sàkku ci gouverneur ne ko il faut ñu songi Mbàkke euh, maanaam Daarul Manaan waaw faw ngi songi Daarul Manaan mu ne kon jox naa la ci ndigal ñu daal di mobiliser benn armée boo xam ne sëñ sëñ Ablaye bu ñu la ko waxee sax da lay yëm ndax cent cinquante tirailleurs sénégalais ak cinquante espèces ñii di ay nit ñu ñuul ñii di ay tubaab jox leen lu war a mat vingt mille ba noppi xamal leen ne cartouches yi du pour ay eh, xar ak ay ay ay ay gaynde ak ay bukkee ak yooyu pour ay nit la waajal leen ci dund ci li ñu war a war ci lépp fek yu fekk fekk yu eh, eh, lu ko jiitu sax maanaam yónnee nañ fi ay xeeti espion yu bare bare pour ñëw di xool boo xam nax loole nag jur nag coow lu rëy rëy xam nga loolu kon maanaam version xëy na archive bi mhm. moom moo wax loolu moom moo wax ne ki nga xam mooy Alice moo jiite woon wala ba commandant Luque Luque mi nga xam moom moo jiite woon dégg nga détachement boobu mhm. waaye na bokkoon na ci bi bi biñ biñ jógee Tiwaawoon jaar Tuul war a ñëw Daarul naan bi ñu agsi Daarul Mannaan ñoom ñu ngi fi agsi le 16 maanaam juin fekk na ca maanaam ca ca ca ca ca xëy na le 13 ja le 13 ja mhm. la fi ku baax ki bàyyi ko moom fekk fekk boobu jot na ndigal ngeen ngeen maanaam génn dem waaye ñoom ñëw nañ ba song si dëkk fii fi nga xam ne mooy kër gi ak seen i seen i seen i ngànnaay ak seen nit ak seen ak ak maanaam seen i soldaar Euh, loolu mooy version tubaab bi bu dee version bi siiw ci yoon bi nag mooy mbaaxaan moo jiite woon ma hmm. détachement ba xam loolu gën a siw ah, ba seede bu rafet boobu buur sin ku ma si doo fen seede woon ci xamal tubaab bi ne ko sëriñ bii ñuy wax ne dafay denc ay ngànnaay amut hmm. xam naa ko baax sëriñu bi yàlla rek la hmm. te tey mën ko garanti mm-hmm. xam nga am na mm-hmm. maanaam lu ñu xam la ci histoire waaw ba wut ay nit ñu ñëw gaw kër gi ngir xam ne xëy na jikkoy ceddo mm-hmm. bu fekkee deful loolu mën nañoo bàyyi ba guddi jot ñu fexe ba dugg fi dugal fi ay dégg nga armo yooyu kon doon ay mbir yoo xam ne xew na fi kon ñaari version yëpp am na si bii mooy bi yoon wi gën a xam suñu Musaa Ka indi na ko sëñ Bachir ak dégg nga maanaam sëñ Lamin mooy ne mbaaxaan moo jiite si woon li nga xam ne moo di détachement boobu tey ji boo demee fee ci bayti sax ci daal xudus da fa fekk benn gaal goo xam ne dañ lay wan la gaal gi maa xam ne caa doon a siiw moom xam ne moo nekkoon moom moo jiite si woon li nga xam ne mooy détachement boobu kon xew-xew yooyu nag boo demee ci irwaa sëñ bi Lamin nee ci la sëñ Tuubaa taalifi woon xasida ak rabbi bi maay ndax bi nga xam ne coow li bari na xalaat tubaab yi ñëw da nga song si kër gi taal fi xare sëñ bi dafa bind xasida googu woo naaru gànnaar bu wax Mouhamad Fall ñu koy wax Mouhamad Fall jox ko ndigal ne nga xam ne koy jàng comme kuy nodd daal di wax ne nañ wër ci kër gi ñu xam ne ne ñooñu di ñëw noonu yooyu di ñëw buñ ñëwee kuñ fekkoon nga tëdd bul jóg jàmm rek ay xew xaddu damu ci kër gi moo tax sëñ bi Lamin nee na xasida rabbi bi maes def na ci ci quartier gi àndoon ak baaxaan fekkee dañoo sukkandiku ci boobu version la tayru ababil ya defoon ca quartier Abraha ga <laughs> mu waaye nag am na wuute ndax ñi àndoon ak baaxaan ci ah. ay chef de canton amoon naa ci ay maam man mi mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. euh, du ñëpp la seen yéene ñaawoon mm-hmm. comme comme Buur daa fësal rek waaye am na ci ñoo xam ne yéene Buur lañ siin woon moo tax yàlla da leen daal di dimbale waat ginnaaw bi ñoom ñëpp dañoo dem xumaag ñu bari dañoo dem xumaag fekk Sëñ Tuubaa tuub ba ci mbaaxaan mi xam nga ne fekk na ko ndar tuub ba mu tuddee ko Abdul Xafoor mu ngoog kon loolu itam hmm. ci xew-xew yi fi gën a am la hmm. nag ci la sëñ bi dafa dellu siwaat fii wala dafa maam dafa continué waat nekk ci kër yi léegi ginnaaw bi fi sëñ bi jogee juin 1903 hmm. dafa dem gànnaar ñëwaatu daaru ma nag bi mu jógee gànnaar ñeenti ati gànnaar ak juróomi ati ci yéen la def jógee fa dem njaarem bi muy dem njaarem sax jaarul fi jaar na Touba ci ci li boo xam ne suñu affaire na ma ko wax ne sëñ Afe Ñang maamam mi doon sant sëñ tubaab bi mu jógee ci yéen jëm jëm njaareem moo ko nettali waaw nga xam ne nettali na bi mu ñëwee ba Touba ak ba mu laaj ko fii fan laak mu ne ko fii dégg nga fi may kër gu maggeeg yooyu yëpp ba ni mu wàcc daarul alimil xabir sëñ daam ak yëpp ma naan nga xam ne kon sëñ bi dellu si waatul laru ma naan maam Cerno nag ci ndigal sëñ bi wéy na dëkk fii ba ni sëñ bi ñëwee ci yéen jolof xam nga fii ci daarul ma naan bi sëñ bi nekkee ci yéen jolof fi la ñaari doomi maam Cerno yu baax yooyu feeña jamono muy muy Cheikh Abdoul Khoudous ak Cheikh Abdourahmane fii fii lañ feeñee jamono xam naa xëy na fii maanaam ci kër donga yi si maam Cerno doon tuddee kër donga yi mhm. euh, da seenu feeñ jamono dafa tombeek sëñ bi di sanci ñaari këram yooyu mu amoon ci bi mhm. bii mu tudde ko daarul xuddus moo tombeek feeñu jamono ak Cheikh Abdoul Xuddus mhm. bii mu ko daarul rahman moo tombeek feeñu jamono ak Cheikh dégg nga Abdourahman euh, kon maam Cerno wéy na fi ne fii ba 1908 bi bàyyi bu baax ba rawee sëñ Mbàkke Ibra ca Mbàkke Kajoor mhm. sëñ bi jox ko ndigal boobu mi ngi ceen di bi mhm. ne ko ne dem taxawu ko mhm. mu taxawu ko delsiwaat bi defaatu fii ab diir sëñ bi joxaat ko ndigal ne dellul Mbàkke Kajoor taxawu di njaboot ga taxawu ji njaboot ga fa la nekk 1908 9 ba mu jug 11 ci la sëñ bi bind bataaxel jox ko sëñ Amsadu Jaxate yónni daar ci maam Cerno Mbàkke Kajoor ne ko na dem sañc daarul moxti mu sañc daarul moxti ci eh, maanaam 1912 bi sëñ nga xam dafa daa dem jaareem taxawul sëñ bi ba àggal daal dem nag euh, dee nga sanc daarul moo ci kon ginnaaw bi nag dëkk fii nag kër gi dafa gent daaru mën naan dafa gent loolu laa doon bëgg laaj sax ginnaaw bi maam Thierno sancee daaru waaw na léegi kër gi nag nu mujj dafa gentoon gannaaw la nekk gentoon mhm. lu mat ñeent fukki at daanaka du ko a jege mm. ndax diggante 1908 9 ba daanaka bi euh, maam Thierno génne àddina muy 1943 du ko sori ci la Seydi Abdourahmane ñëw Cheikh Moustapha loolu waa daaru kooku man sëñ Bay gis la dina ko faral nettali Cheikh Abdourahmane ñëw ci ma ma Cheikh Moustapha laaj ko ndigal ngir yeesal si bi Cheikh Moustapha jox ko ci ndigal ba jox ko sax jiwoog yëpp waaye bi mu ñëwee dafa daal yeesalaat kër donga yi wax nañu sax yeesalaat na kër gi itam waaye waaye moom maanaam ginnaaw bi nga xam ne Cheikh Moustapha nelaw na li nga xam ne mooy kër gi dafa gentaat bi ba ba Cheikh Amadou Fadal noppi ci jumaay Touba ji rek bi mu liggéey jumaay bépp dëkk boo xam ne Cheikhul Khadim da koo sancoon te sancoon ko ci coobareem nga xam ne nekkul ne tubaab bi ko fi yóbbu woon mu yeesalaat dëkk booba moom Cheikh Amadou Fall ci loolu ci la yeesale Mbacke Bari yeesal barabu maam maharam bu ci na at moomu sax dafa wax ne ku feeñ ci askan wi la ñu tuddee maam maharam daal di yees amoon yéen a dem yeesalaat comme sama sama rakk ju baax kon na moom mën ma faa wut waaye loolu la bëggoon Daaru Salaam itam mu ne maanaam Cheikh Mahamadou Mamoun ma nga fa mu daal di ñëw yeesalaat nag daarul ma naan daal di nag maanaam fexe ba génnewaat kër gi li nga xam ne mooy néeg bi mhm. ak koñ yi ak lépp loo xam ne maalim maanaam bépp bépp maalam ci ci ci ci mhm. ci mandarga bu fi nekkoon mhm. Cheikh Amadou Fadal da ko da koo génnewaat génnewaat bu wér yeesalaat ko wax nañ ne sànq rek ki fi nekk mi mi mi jox information bu am solo mu wax ne ci boobu jamono sëñ Mbacke Madina ak sëñ Modou Xabaan ak sëñ Modou Bousso Dieng la sëñ Fallou joxoon ndigal ñu yeesalaat kër gi muy muy ko néeg néeg néeg bi nga xam ne néeg bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw ni mooy néegu Sëñ Tuubaa bi nga xam ne fi la waxoon ne ci gàmm gi mujj a defe fi nga xam dafa gàmm rek teg ci juróomi fan dem gànnaar néeg bi fi la ko sallallahu alayhi wasallam fekke nga xam ne ci la maanaam taalif yi xasida yaqini ilal jannati maa laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zaara ahmadu macha allah fii fii fii la ko taalif ah, baytana zaara ahmadu kon fii la ci jublu mooy néeg bi macha allah <laughs> mooy néeg bi suñaa euh, fa it nee na ma dégg nag bi nga xamee ne sëñ baa ngi gànnaar dafa bind lettre maam Cerno yooyu moom maanaam lettre yaa ngi fi mhm. di ko wax ne ko mboolem ay gaal yi fi nekkoon te defoon ay téere nañ ko yët gànnaar ba mu ñëwee bi téere yu ci bari da ko sottlu nee na sëñ am sot la ko sottuloo mhm. bi nga sottee ba àggal mu mu jël la nga xam ne moo doon cosaan ye mm-hmm. daal di koy jàmb ba mu ci mm-hmm. mu dee mu naan <laughs> <laughs> waaw daal yónni waa di ci des <laughs> waaw loolu kon xew na fi kon Cheikh Amadou Fadal li nga xam ne moo ko moo ko jotale mm-hmm. mooy bi jumaa ji noppee nga xam ne moom liggéey bi naa li Sëñ bi gën a mag noppi na yéene mooy bépp dëkk boo xam ne Sëñ Tuubaa da koo moo da koo sancoon te sancoon ko ci coobareem mu ne foofu na ko yeesal ci la yeesal nag daa dul mën naan gii nag euh, féeti woo ko féeti woo waral mooy ginnaaw bi mu koy yeesal booba dara niwu fi woon muy kër waa dara newu fi woon bokkul woon ci yi nga xam ne dañ ko doon maanaam yooyu nag bi fi ku baax ki jógee mm-hmm. comme daarul xudóos comme daarul rahman ah, dafa gentoon rek dafa gentoon mm-hmm. mu mu yëkkatiwaat ko yeesal ko loolu moo waral mm-hmm. mu ne ci ay loxoom waaye nag daawu fi dëkk mosu fee dëkk da ko defoon daaru xalwa wa daaru mënaajaat su ma saana am soxla su su ñor su su su far fii lay ñëw bu ñëwee moom bu fi defee li mu fi def moom. buy buy buy dem loolu faju loolu daal faju <laughs> waaw loolu daal di faju ci nit ñi noonu la ko daan sëñ Fallou waaye léegi mu mel ne mm. kon mel na ne bi ko sëñ Fallou yeesal nee nga mboole maalim yi fi nekkoon mm. fexe na ba génnaat mm. ndax jeexital yooyu am na ci ñu mën a tudd fi mu ne nii tudd nga nekk néeg bi sëriñ bi waaw daarul xalwati di tudd nga ko waaw waaw ndax am na yeneen waaw xam naa nag euh, bu dee yi ñu ci mën a xam bu weesoo néeg bi mm-hmm. mooy xëy na fuur bi fuur bi waaw fuur bi mm-hmm. fuur bi moo wax nañu ci ci ci ci maanaam jamono ku baax ki mi ngi foon mm-hmm. waaw nañ mi ngi foon Euh, te incha allah xam naa da ngeen ko gis naka noonu lu fee lay mel ne as njàkk suñuy du ma wax sax as njàkk ndax jàkk du ndaw jàkk jee mm-hmm. wax na sëñ Fallou su ma saan ñu fa la daan fa la daan toog di di def ay ay ay ñaanam ak ak yu mel noonu euh, kilifa yi àdduna yu bari ba ci Senghor fekk na ko fi ak dégg nga Mamadou Dia sax fekk na ko fi ñaari garab yee ngeen gis itam mm-hmm. muy garab bi mbul mm-hmm. ñu ngi wax ne euh, Cheikh Amadou Fall moo ko jëmbat ci loxoom te maanaam Senghor ko andi loon fekk ko fii biñ ko yëtee mu ne moom daal ñaar la ciy tànn muy muy ñaari garab yu yi Euh, dégg nga daal koy jëmbat waaw yooyu daal xam naa ne ci yi ci mën a xam ci ay jeexit moom waaw waaw waaw waaw lu weesoo nag xëy na daari alxuraan ci fi nekk waaw sax la bëggoon laaj ndax mhm. bi njabootu Cheikh Mamadou Fadal mhm. yoraat ko mhm. sëñ gis nañ taxawaay yi mu ci defoon ba léegi mu assasa bi nga xam ne mu assasa Cheikh Mamadou ñoo yor kër gi taxawaay yi nga xamante ni yan taxawaay lañ fi euh, barab bi dëgg la waaw taxawaay yooyu da xam naa dañ ciy jaajëfal euh, ginnaaw taxawaay Amadou Fadal bi ci ci ci dekkal maanaam gent bi ak dundal ko ak feeñal jeexit yi dañuy dañuy jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ko fi wóotu di ay ndonom te ka ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil mm. wax dëgg yàlla dundal na kër gi taxaw na ko lool ndax ci ak nekkam man maa ngi ko ci ak nekkam la ubbi fii daari alxuraan ji waxit waa mu assa bi ne leen nañ koy taxaw ak sëriñ Sëñ Fall yi mm-hmm. ne leen na ngeen fexe ba daara ji moom lu mën a xew mm. nay dund ne tout tànk yi ñëw ngeen wutub jàngalekat bu ko jaree sax ngeen koy jox dara ba léegi rek maa ngi laaj fi daara ji toll xam ne eh, bi nga wax ne ma eh, ba léegi mi ngi koy loxee sët yi dafa mel ne sëñ sëñ Moustapha moom sëñ Bachirum sëñ Fallou moom moo moo koy saytu waaw ci maanaam tudd sët yi ba ki fi nekk nii sax ñoo koy kon eh, fi mu nekk nii ci loxo yi ci loxo yi njabootu sëñ Fallou la ne ndax ginnaaw sëñ Fallou Cheikh Mouhamadou Moustapha Fallou moo fi nekkoon moo ko dekkalaat yeesalaat ci yu baree baree bari ubbi fi daari alquran ji nga xam ne moo doon cosaan la mhm. comme comme ni ñu ko waxoon léegi mhm. euh, teg ko ci loxoy sëriñ ak ci muassasa bi ginnaaw mi tam nag wax dëgg yàlla Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom itam ñëw na gën koo dëgëral gën koo yeesalaat gën koo taxaw gën koo sàmm ndax dafay ndono loo xam ne suñu dafa am solo lool mhm. ndax kenn mënta waxtaane taarix yor murit te tuddoo ko comme ci xew-xew yi fi xewit doy sëkk misaal bi mu fi jógee itam mi ngi ci loxoy Cheikh Cheikh Aboul Baraka Cheikh Amadou Fadil yàlla na fi yàgg loolu te wér moom itam mi mi mi mi ngi ci taxaw taxawaay yu rafet ci sàmm ak ak saytu ak dégg di ko waggar kon daal fi fi ma waxee yow moom euh, daara ji mooy li nga xam ne moo ci gën a yitteel euh, jamono yi xay na nag fi mu nekk ni am na euh, maanam chantier bu nekk. am na yenn waaw am na ay projet yu ci naal. Mhm. yoo xam ne maanaam mbokkum taalibe mu baax. Mhm. muy ku ñu wax Arouna Coumba Ndoffène. Mhm. nga xam ne moo koy taxawu fii. loolu itam di liggéey bu am solo. ñuy ñaan rek euh, suñu borom àggale ko ci jàmm gisatu buur si buur mi nga xam ne moom nga wax léegi moo doon seenal si xam naa ko moom am na cër ci ma Manaan moom ken ëppale ko ci Daaru ah, Manaan ah, ndax ah. maamam mm-hmm. day mel ne moo seere woon seere bu rëy boobu mm-hmm. wane ne fii mm-hmm. ay ngannaay amu fi ay téere fi nekk ah ak téere alxuraan ak dégg nga téere kese moo fi nekk loolee nag xam naa moom la xam moom Arouna moo tatax mu am yéene fas yéene yee salaat euh, kër gi macha allah gis ngeen ko nii kon yàlla na ko yàlla la jàmm te jund ba fekkee lépp rek waaw incha allah xam naa jërëjëf sëñ Fallou mm-hmm. mel na ne waxtu yi dab nañu mm-hmm. waxtaan wi am na solo mënees mm-hmm. na cee jàngate yu bari itam histoire feeñ na ci bari na ñuy dëkk ñu ñu juddoo Touba waxuma la nekk ci yoon waaye juddoo Touba te barab bii xamuñu woon ne lii mooy taarixam xew-xew yu mel nii am na fi jeexit yu mel nii am na fi kon kàddu yooyu tàggoo li may tàggoo rek mooy ni nga ko waxee léegi faw laaj ne maanaam li ngeen def ni am solo li ngeen def dafa am solo ndax dundal ngeen dundal béréb yi nga xam ne maanaam Cheikhul Khadim da ko da ko da ko da ko sancoon wala mu sanc woon ko day tax ñi nit ñi gën koo xam te buñ ko gënee xam gën a xam soloom ndax fii kat ay kàngam yu mag a mag a mag mag jànge nañ fi ba jóge fi li suñu fàllu daa wax mhm. suñu bàyyi ceeruñ jàngal ba ñu aar mu yar ñu ba ngi nëdd mhm. lu ci bëree bëri la xewee yi da nga mhm. maanaam ci naan gi ak li wër daarul alimul xabiir rek ndaa ba da nga yeneen dëkk yi kon jàpp naa ne tey jii euh, jeexit la ju rëy rëy ci yoonu murit boo xam ne kuy wax patrimoine u maanaam yoonu murit faaw daarul mën naan moom day na ci biir kenn mënu ko cee génne ndax yooyu ñu tënk te te lu néew nag ci lu bare bare bare loo xam ne war nañ ko mën wax ci daarul mën naan kon yàlla na yàlla fay leen te yàlla gën a gën a barkeel seen i jéego te itam yàggal fi njabootu Cheikhul Khadim mi Cheikh Mountakha ak njabootu maam Thierno gi xam ne ñoom itam wax dëgg yàlla ñu fi ñu leen siyaare bu baax a baax seen taxawaay rafet lool gis ngeen ni xam ne noonu la dundale euh, penc bi ak ak maanaam barab bi loolu yàlla yàlla leen taxaw leen te fay taalibe yëpp te yàlla defal leen tawfiq tey seen salaam wa rahmatullahi wa kon mbokk yi yéen a gis jataay bu am solo bi nga xamante ni eh, ci seen émission nemmeeku moom lañ ñëwoon fii tey ci kër seexul Khadim gii nekk Daarul Manaan àndoon ceeg suñu mbokk mi di borom xam-xam di gëstukat yaakaar naa tey li mu détaillé fii ci Daarul Manaan man mii taxaw sax xaw ma ko woon wax ma ko waxuma ak yeneen murit yoo xam ne sax xamuñu mosuñoo teg seen tànk fii ci barab bii di Daarul Manaan ci ay xissa ci ay jeexit ci ay ni mu ko waxee patrimoine bokk ci patrimoine yoonu murit kenn mënta wax histoire yoonu murit murit génn ci Daarul Manaan kon muy jataay bu am solo boo xam ne mën nañ cee jàngate lu bari kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci topp gi ngeen ñu doon topp eh, di leen dig daje ci yeneen i numéro ak ci yeneen i barab di gërëm bu baax a baax Serigne Abdoul Khadir Bousso mi nga xam ne moo doon réaliser émission bi waaye itam ànd ak ñi nga xam ne ñooy technicien yi caméraman yi Serigne Cheikh Diop Serigne Bàcci Serigne Afia Bousso Ahmed ñoom itam ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax ci eh, eh, réalisation bi nga xam ne réaliser nañ ko fii ci ma naan di leen dig daje ci beneen numéro ci beneen barab boo xam ne war nañ faa dem nemmeeku ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rabbaani annaabi walwahab waskuruhu ma dumtu hayyan bi qawli alhamdulillahi wa gaani adura takriman wa wajjali naf'an bila sababin fa sukru lillahi